fekk na fi sëñ jiili mu sëñ Cheikh Awa Balla ak sëriñ seex Sorong fekk na fi sëriñ seex Dia mu Cerno Abu ja sëñ maam Cerno dafa yebal sëñ jiili ak magam ji nekk Tiwaawan muy sëriñ Basiiru Mbàkke ak sëñ Xaadim Mbàkke ngir ñu ànd ak sëriñ Koso Mbàkke taawum Cheikh Mouhamadou Mountakha ñi ngi ci barab bi fekk fii sëriñ Cheikh Jamu Cerno Abu Dia ak sëriñ Cheikh Soran ak imam Moussa Kayre Cerno Ibrahima Dia Cerno Ibrahima Dia wu Cerno sëñ Koso mi ngi ànd ak Serigne Fallou Mbakke moom sëñ Abdou Latif moom maam Mor Diarra di jërbaatu sëñ Muntaxa Lenge ak Serigne Basiru moom sëñ Isaaka Mbakke ci Poroxaan ak sëñ Basiru moom sëñ Maam Cerno ak sëñ Jiili moom sëñ Maam Cerno ak sëñ Xaadim Mbakke moom sëñ Maam Cerno ñu ñëw ci kon ñooñu ñoo fi teew sëriñ Moustapha Mbar mu sëriñ Moodu Aminta moom it na mi ngi ci jotaay bi fekk na sëriñ Basiiru mu sëriñ Saaliw yegsi na ba nekk ca kër ga ak sëriñ Amsatu sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad léegi la fi jóge moom kon ñooñu ñoo fi jot a ñëw ak ñeneen su ko defee kon ñu maasee teewlu bismillah salaamaaleykum gi ñu may ñu tuuti sëriñ bi nee ñu may leen ba mu yeggale daal gan yi rek ñu dellu ci njàng mi sëriñ Ibrahima Dia mi nga ànd ak ay rakkam Thierno Bachir Dia ak délégation bu yaatu Cheikh Ahmed Saloum Dieng tamit teew na fi mi ngi ci jotaay bi démb mi ngi fi woon ba ci ngoon imam Moussa Kayre moom it dem ba tey mi ngi fi sëriñ Lamine Cheikh Amidou Kane moom it yegsi na mi ngi ci jataay bi Serigne Cheikh Soran mooy fi nekkal soxna Bintu Mbacke moom Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke diggante soxna Bintu ak Serigne Saliou Touré nag moom umpul kenn ci dëkk bi bismillah sëñ Chérif asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax ñun njabootu sëriñ Saliou Touré gépp ci njiital sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré mi toog di bëgg a wax luñ mënta wax nga xam ni dina jafe lool waaye ñu rafet njot mbakke ak li sun boroom def ci yéen luñ ci junj lu mu néew néew rek di ngeen mën a xam la ca des waaye lépp xel mu dal ak xol bu sedd rek moo ko lal nuyu giñ la bëgg nuyu ak dalal giñ la bëgg a dalal ci sa barab bii nga xam ne sa barabu bopp la ngir barabu sëriñ bi la te moom lañ leen di xoole loolu li muy ñor-ñor sëñ Cheikh dafa wax ni balaa nuyoo gi balaa dalal gi cant gi nga xam ne ñun jabootug sëñ Saliou ture gépp sant nañ ko sëñ Mountakha loolu lañuy ñuy njëkk a def ba noppi ndax moom de won nañu ci fànn yu bari ni mooy sëñ Saliou ture sëñ Saliou Touré mooy moom amul kenn koo xam ni dana bàyyi koo fii dama jëlee la sax ñi nga xam ni njabootuk sëñ Sall Touré lañ waaye ñi nga xam ne ay donga lañ képp sëñ Cheikh Touré nee na mi ngi sàkk ci mboolem taalibe yépp ñu àgg suuf ba lépp noppi ànd ak dal